Why? ok bon gars ba ñoo commencé maa ngi leen fàttali ngeen di like vidéo yi vidéo yi xam naa ne ba ngeen koo like mais leen koy fàtte kon boog likeal vidéo yi mu may seetaan boo paree après nga daal di partagé. Ah, mën a wax Ndoye Ndiaye. ok gars ba ñoo commencé dama leen bëggoon a présenter DTS location et vente de voiture. DTS location nag benn entreprise la buy dox ci wàllum location de voiture. wala mo xam nga bëgg ñu jaay la oto wala mo xam aussi nga dem fenn wala ñu jël si la fi nga jugee kon bok deglu leen ma bu baax mo wax leen ñu entreprise bi ñu naan DTS location yow mi nga xamanteni ni da nga soxla walum location de voiture fi ci Sénégal wala mo xam nga bëgg a jënd auto oto boo mënti bëgg nak gaaw nga contacter wa DTS location de voiture wala tamit mo xam nga bëgg départ sa kër bëgg dem aéroport wala nga jógee voyage pour ñu jël si la aéroport pour yobbu la sa kër gaawal gaaw nga woote ci numéro téléphone yi ma leen defar ci suuf pour nga mëna a def sa réservation moy 77 334 60 28 wala nga woote ci 33 605 61 36 28 numéro yi nag am na whatsapp même boo wootee appel normal di leen ci jot. kon mbokk gars gaaw ngeen contacter waa DTS boo leen ko defee doo leen ko rëcc oto yi moom tout neuf la te li ma gën a neex ci oto yi mooy confortable bi confort gi ci boobu oto yi maam oto yi confortable la macha allah. ba tax na yow mi bëgg wàllum location oto moo xam nga bëgg a jënd oto. wala moo xam aussi nga bëgg dem voyage gaaw leen gaaw nga contacté waa DTS boo leen ko defee doo leen ko rëccu gars yi numéro téléphone yi a de nouveaux dossiers. <laughs> gars yi <laughs> gars yi man damaa sax mujj man maanaam sama reetaan gi maam gàcce gàcce reetaanu <laughs> reetaanu gàcce moo gën a bon ci laa ci laay nekk di ree nii quoi parce que sénégalais ñeme yàlla gim ñeme yàlla ñenn ci sénégalais yi bokk. parce que yenn saa du ñeme yalla kessi di wax bay wat nan diw du bokk kii nii gayeen mooy jël ah xëjante bi fi ah man dama mujjé dépasser motax mu leen di ñaan bu kenn dag vidéo bi nañ ko sétane bam mu jeex ngeen déglu yi da naka sax da ngeen mujjé découragé wu man te man man man dal ñi yak kan nañ sama émission quoi gay ngir yàlla war nañ ko ah, ndo enjoy ko ngeen dégg man je comprends pas bismillah déglu leen déglu leen gay bu baax. go mo jomay jall daf may bett. Euh, franchement. Euh, parce que nit bu fekkee da nga da nga nekk ci réew. nek citoyen ñu japp le yobul la kasso ñu accuser le atteinte à la sûreté de l'État xam nga extrêmement grave. Euh, en âme et conscience hein entre nous góob ni dina dial déjà mu ngi mu ngi en détention donc parce am na plan C c'est sûr. mais da koy nëbbu. mais Diomaye bu jàllee daf may daf may bête machine bi fen kat bu ñewon rew mi day paan ndax la. li fi ne ci ay fenkat mënta faj ñëpp. mais c'est honte. 2024 bi gisoo ci dara yow. 2024 tey it koy wax yaakaar mi ngi nekk février euh, ci ba tey ci 2021 bi laa ko waxoon diggante bi ma ci Macky Sall ak Ousmane Sonko ci wax Abdou Karim Wade doomi Abdoulahi Wade. Mm. ma nekk ca Qatar. waaw ci li suñ borom xamal mu leer naññ. ma wax ko. ci yeneen ak yeneen mu am mu won 2024. Abdou Karim Wade mooy nekk président de la République du Sénégal. kan Karim waaw. Ah. li nga wax ni sama plateau bi nga ko mos a wax wala waxoon nga ko feneen nga de. li ma ko wax daanaka bari na lool daanaka vingt et un deux mille vingt et un ba léegi maa ngi koy wax lu bari. waaye dafa nekk mbir boo xamee ne bu la ko suñ boroom dee xamal la ko dafay jar di fedd lu bari. machine bi faj fenkat bu ñëwoon réew mi day paan ndax la li fi ne ci ay fenkat mën ta faj ñëpp. lii xëy di sos ci réew mi Sénégal gii pap taxaw di fen mel ni koy wax dëgg di fen bay waat. mais c'est honte. nga tegal ma vaar bi ma waxoon ne. su Ousmane Sonko bokkee tudd leen ma xaj. waaw naa ko. wallaahi ba si jëmee fay. waaw su bokkee. waaw ut leen xaj yow seen kër ngeen ma ko loolu gën a dee. gàcceel ngeen ma. gis nga sama dund gi dee sax moo ko gën. ëpp na ëpp na <laughs> lii moom daa ëpp moom. mais c'est honteux. ba ñu tànnee Bassirou Diomaye nga ne yow yay nga leen. boo demee ba naan yey nga leen kay ça veut dire que yow gëm nga candidature Bassirou Diomaye. Euh, soxla si li yóbbu Sonko du fi bàyyi Bassirou Diomaye ci gàttam képp ku bokk ci Pastef ñu dissoudre ko gëw ma ne da nga mën nekk candidat waa Pastef faaw ñu dimbali leen ñu gagné temps ñoom sax seen stratégie loolu la xam nga bu ñu jëlee Bassirou Diomaye fay yóbbu ko directement mu def parrainage citoyen

c'est l'espoir du pays et du peuple. L'homme au mains propres sur la barque du Sénégal pour des destinations Karim Bagn mais Karim du def vous avez vu, waya waya dañ

le plan B plan Z kay parce que même B bi baaxul. B baaxul. B bi ah, baaxul Bassirou Diomaye baaxul. bokk ci ah, baaxul ah, c'est-à-dire. expliquer dem. ah expliquer. parce que parti bi nga xamante ne moo ko bëgg a investir dañ ko dissoudre. et après ah, ah, ah. mais parti bu ñu dissoudre ah. nan nan la ñuy jëlee parti ko ak motif yi nga xam ne moom lañu ñu évoqué pour motiver dissolution boobu parti boobu di investir nit ñu ne eh, non ci texte laa ko teg parti bu ñu dissoudre képp ku ci bokk machine bi faj fenkat bu ñëwoon réew mi day paan ndax la li fi ne ci ay fenkat mënta faj ñëpp lii xëy di sos ci réew mi Sénégal gii pap taxaw di fen mel ni kuy wax dëgg di bay il est en prison ça ne veut rien dire. il est en prison comme comme Mom Sonko. nee naa Sonko l'Iko ko tere nekk kan déclaré candidat man m'a analyse politique Moi, décision cour CDAO. te cour CDAO, Mom, li mu ne ñoom dañ leen a war a jàpp ci yoon li def gouvernement dafa respecté procédure bi. moom ak Bassirou Diomaye yépp la e la boole mu désigné ko alors que li dal ci kaw moo dal ci kële man doon naa réfléchir. Eh waay day duuli. yow da ngay naa la xamal benn secret nag nit ñi dañuy wax rek mais man Karim Wade 2015 la ma yàlla woon ci moom. mën nga wan loo xamante ne bii nii. incha allahu taala xaw ma kañ lay dee. loolu mu ngi si si si. ci mbiru suñu borom mais Karim Wade li ma yàlla wan ci moom incha allah dinaa teg sama bët. lan la la Karim lu la yàlla wan ci Karim. mooy jiite réew mi te bu ko jiitee réew mi la 2024 jeexee dina fi toogaat lu tolloog ñaari weer wala ñetti weer élection yi date bu ñu ko jàpp du am. nañ ñëw nañ ñëw ci Karim après dinañ dugg foofu noonu euh, ba léegi yow itam nga ne dina doon kii. Karim bu ñëwee ci réew mi. picc yi naaw sax dañu yëg nañ njiitu réew mi dugg na ci réew mi wallahi al asim man maa la wax li wa rabbul kaaba Karim Wade dina ñëw te dinaa te dinaa la jox benn benn révélation bu doy waar boo xam ne jàpp ko Karim Wade bis bu ñëwee wallahi al asim laa la wax am na ñoo xam ne seen tur foofu lay doxee fa machine bii faj fenkat bu ñëwoon réew mi day paan ndax la li fi ne ci ay fenkat mën ta faj ñëpp lii xëy di sos ci réew mi Sénégal gii pap taxaw di fen mel ni kuy wax dëgg di fen bay waat waaye ba démb yaa ko doon wax de nga ne xooj nañu mais jomaay jàll na. ah mais jomaay du dem. Euh, du dem <laughs> non je jomaay du dem parce que ah. mooy passé bi di suuf. dégg naa ci kenn koo xam ne dafa fen a fen ba ñuul kukk ngeen jégal ma ci kàddu gi kilifa yi.

gars yi man man affaire dépasse na ma de commentaire dañ ko waxtaanee ci suuf parce man réew mi daal yi xew di ñemee yàlla man daf maa dépassé daal gars ci suuf daal commentaire s'il vous plaît waay <laughs>